mbokki al bayaan wa tabyin ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu am mbégte ak kontaante ci ànd ak ci darsu jawahirul maani wa bulughil amaani fi fuyudi sayyidi abil abbas ahmad at-tijani radiyallahu anhu tey nag di suñu ñeen fukkeelu darsu ak juróom-ñeent ci téere bi daanaka ñu yegg ci talu xaaj bu njëkk bi ñaari dars rekk mooy dox suñu diggante moom inchaa allahu rabbi suñu dars bi weesu nag ñu ngi daanelee woon ci tontu yi nga xam ne Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu anhu mu ngi ko doon tontu di leeral ay aayaat yoo xam ne ñëw na ci alquran bi jëm ci xukmullah ak ci masiyatoom mu di ci leeral ay mbir yu bare bari rawatina ci lu jëm ci wàllu ngëneel li yàlla defal jaam defal ko ci wëles kële ci lu amul benn sabab amul benn illa niki noonu yi tamit mi ngi doon jàngal wuute yi nga xam ne amoo am na ci wasful malaika ndax ñoom arwaax mujarrada lañ wala ay ajraam lañ mu leeraloon ci ay leeral yu am solo ku dellu ci dars bi paase duñ ko dégg ala kullin tey ñuy war a dooree suñ dars suñuy waxee ci page 370 yow mi yor euh, nusxa bi nga xam ne taxqiqu Cheikh Cheikh Tidiane Alioune Cissé moom moo ko def page 370 mu ne waalam na nga xam ni anna xadratal xaqi céyeb yàlla bi subhaanahu tudd na ma sellam wa taala te kawe na muttaxidatun min xaysu zaat dafa bennoo buñ ko jëmalee ci jëmm yàlla ji maanaam doo fi gis ay téy yu bu jaar fii wala bu jaar fële pays yoo xam ne pays yu bennoo la jëm ci téeb borom bi subhanahu wa taala muy lu lu lu ama am solo nag ci njàngat yi nga xam ne war nañ ko def bu baax mu ne muttaxidatun lu bennoo la min xaytu daat bu ajoo ci jëmmi yàlla ji والصفات والمؤدت ملو يالي والأسماء والمؤدت ترية والوجوه والتي جمية وينك ناخم والوجود كله بأسره متوجه إليه بالخضوع والتذلل والعبادة والخمود تحت سلطان القهر وامتثال الأمر من ناخم منك nga يب ni nekk من ci yëpp mbindeef yëpp ci diko toroxlul ci diko jaamu ci di nangoo wàcc ci suufu nguura nguuram ak suufu noteelam ni ci noonu di jëfee ay ndigalam wal mahabba wa taadim bëgg ko lool nag te di ko màggal wal ijlaali ba tey di ko màggal fa minhum almutawajjihu ila surati alxadra alilahiya nasran fi mahwil xëyri wal xëyri am na ñoo xam ne dañuy jublu ci jëmmi téeb borom bi subhanahu wa taala jàkkaarloog moom di tangaas loolu nag mi ngi amee ci mahwil xëyri fi ngay faree lu duhut yàlla wal xëyriya wal wal xëyriya fare itamit yeneen ya lu duhut yàlla ak yu duhut yàlla moo tax xëyri dañuy wax ni Maolana Cheikh Tidiane moo ko njëkk a prononcé ci ñi nga xam ne ñooy sufiyanke yi sufiyanke yi xamoon nañu xëyru mooy maa si walla waaye xëyriya yow ci sa bopp ci biir xëyriyatu bi ci nga bokk kon loolu lu am solo la loo xam ne jar naa leeral bu baax ومنهم المتوجه إلى إلى إلى الحضرة العلية من وراء ست كثيف أم نجي نوقم ندني جبل بير يالا waaye nag ci ginnaaw sitre maanaam euh, euh, euh, niñ koy waxee xijaab maanaam kiiraay kiiraay loo xam ne kafiitin bu diis la ñooñ ñooy mu ne wahum abadatul awsaani wa man daahaahum mooy ñi nga xam ne dañuy jaamu xërëm ak ñi méngoog ñoom xam nga xërëm ñu bari dañoo foog ni mooy li ñuy yett teg ko fële nangam nangam loolu xërëm la waaye am na beneen xërëm boo xam ne fekk yaa ngi koy jaamu munoo yegg ci yàlla mooy sa wujud gi sa jëmm ji bëgg sa bopp di jaamu sa bakkan bi loolu mooy xërëm bi gën a mag ci xërëm yi loolu mooy as-sirkul akbar kon loolu tamit lu mat bàyyi xel la xërëm yooyu nag day waral ngay maanaam nga janoog téyeb yàlla bi waaye ci ginnaaw kiiraay gu diis fa innahum fi tawajjuhihim ila ibadati al awsaan ndax ñoom jublu biñ jublu ci jaamu xëram maa wajjahu li gayrillah maa tawajjahu li gayrillah jubluwuñ ko maanaam jubluwuñ xëram ji li gayrillah wëlees keneen ku duwul yàlla wala abadu xayra te jaamuñ yàlla dëgg dëgg sax boo ko seetloo nit ki amul lu muy jaamu lu duwul yàlla waaye nag ñoom seen jubluwaay leneen la waaye seen jubluwaay ak la def sax dafa mun ko wut wax ji nag wax ju naqaree dégg la ku amul dégg-dégg lool di nga wax ni Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dafay daganal jaamu xërëm waxut ni jaamu xërëm dafa dagan li ñuy wax mooy ñi nga xam ne dinañ dem ba janoog téer yàlla bi te duñ xam ni lii la ndax kiiraay yu diis yi nekk ci ñoom li ko waral mooy jaamu jublu bi ñuy jublu xërëm di ko jaamu bu te ñoom seen jublu boobu dañuy jàpp ni sax yàlla lañuy jaamu euh, moo tax mu ne mënuñoo jaamu lu duwut yàlla euh, walakin waaye alxaqu subhanahu wa taala tajalla lahum min waraai tilka sutuuri bi azamatihi wa jalali yàlla daf leen a feeñee ci ginnaaw yooyu le e, e, e, xërëm wala yooyu le kiiraay ci màggaayam gi ak jalaalatoom gi wa jazabahum bi xaytu dalika bi xasabi dalika bi xukmi alqadaai walqadr mu jazbu leen biggi leen ci ñu jaamu loolu nga xam ne mooy xërëm ya lool nag tegu ci qadaa maanaam ci ndogalam ci atem wal qadr ak ci ndogalam alladhi bi nga xamne la munadi alahu fi ken mun ko xec ak mom wa hada huwa tawajjuh ila allah karhan lolu moy jublu yàlla par la force mota tax yaqulu subhanahu wa taala borom bi subhanahu wa taala day wax ni walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi tawan wa karahan walillahi yasjudu maanaam sujjootkat yi nekk ci asamaan ak suuf ñoom ñëpp yàlla la ñuy sujjootal tawaan moo xam ñu def ko ci seen bànneexu bopp maanaam ci seen ba teg ko ci euh, maanaam def ko ci topp yàlla aw kërhan wala ñu def ko ci force bum ci mënti doon rek borom bi subhaanahu wa taala ci biir loolu nag dañ ciy gis ni fal wujudu kulluhu mutawajjihun ila hadratil ila hadratil haq wujud gi yëpp dañoo jublu péyeb yàlla bi subhaanahu tudd na ak sellam sellam bi sifati ma dakarna fardan fardan ci meloow niñ ko tuddee benn par benn maanaam kenn ku ci nekk ak anam bi nga jubloo borom bi subhaanahu wa وإن الكفار والفجرة والمجرمين والظلم فهم في ذلك التخليد الذي خالفوا فيه نصوص الشرع وصورة الأمر الإلهي فإنهم في ذلك ممتثلون لأمر الله تعالى ليسوا بخارجين عن أمره ومراده إلا أنهم خرجوا عن صورة الأمر الإلهي ظاهرا وغرقوا فيه باطنا لنبي وهد جراود مولانا السياوخ ku amul pas-pas wala nga amoo dégg-dégg doo ko mën a dégg dafa wax ni wujud gi yëpp nekk tey fi yëpp dañoo jublu téer yàlla bi ci benn ci melo yi nga xam ne moom lañ tudd maanaam nga jublu téer bi yàlla bi ci ginnaaw kiiraay lu diis loo xam ne amaan na sax ngay jaamu lu duwut yàlla te fekk ni dëgg dëgg jaam yàlla ngay jaamu mu a yéeféer yi ak kàccoor yi band yi ak tooñkat yi ñoom في ذلك التخليط الذي خالفوا فيه نصوص الشرع في جيف جوغ نخب من ينكو إذا سووت تك شرعي سووت تك شرعي من نم وصورة الأمر الإلهي ووتت ديالك برام سبحانه وتعالى فإنهم في ذلك نم تبير لول يبنك ممتثلون way jëfee lañ li amrillahi ndigalal yàlla taala kawe na laysu bi xaarijina an amri yu muraad yi génnuñu benn yoon ci ndigalal yàlla wala mbëgg namm-namm ak borom bi subhaanahu wa taala illa annahum xaraju an surati l amri lu dul ni rek ñoom dañoo génn ci maanaam dañoo génn ci kaaduru digleeg borom bi subhaanahu wa taala ci zahir waaye nag wa gariqu fii baatinan dañoo lab ci jëfee ndigalal yàlla ci baatin فإذا عرفت هذا بوخمي لينك فاعلم أن الكون كله فردا ما يخمي كون بياب فردا فردا بن فردا كل ذرة منه بن فرد أتم بنه كون برك مرتبة للحق جراد لن يال يالا بحكم قاس في أتو وخمي ممجدل لا يحكم به في غيرها دكو أتو كنن ما نعم ليالا جغلل بنده بنا جغلل كنن ويفعل فيها بنجف كمهم فعلا جف خاصة مؤسسها لا يفعله في غيرها دك دفتنا ويوجه إليه تلك الذرة ويوجه الجبل جبل, جبل إليه طمام تلك الذرة بول بنديف بتوجه خاص إليه جبل هاي وقمنا دفقك جبلل لا يوجه به غيرها دك جبل كنن كدور موم ويجب الرضا والتسليم له عينك دفعي ورد ñu gërëm lu yàlla ci ay ndogalam waaye nangul ko ko eh, wa taslimu lahu fi xukmi nangul ko ay dogal yim dogal ci ni faqad xaalafu amrallahi zahiran mu ne jaamukatu xërëm ya wala defkat naka si duwut noonu dañoo wuuteeg ndigal ak yàlla ci zahir waa wa faw bihi baatinan waaye dañ koo jëfee ci baatin bi xaytu laa yasruun te sax duñ ko yëg wa ma yaridu alayhim baada ذلك من الثواب والعقاب والجزاء في دار المآب عذابا ونعيما كل ذلك بحكم مشيئته التي لا مرد لها ولا يسأل عما يفعل من اللي خمنا مويتا بيتي جامدي في قيتو فاي بطيال jaam bi ci xeetu pay bu ëllëg yowmal qiyaam maanaam mu laalal ko mbugalum safara wala mu dugal ko ci xéewalu àjjana yi nee na benn bu ci nekk loolu dafa aju rek ci atteb coobare borom bi subhaanahu wa taala yàlla kenn mu koo delloo te yàlla kenn du ko laaj lu tax nga def nangam mu ne nag fa ida arafta boo xamee haada lii wa taamaltahu nga settantal ko wajadta kulla darratin fi lwujudi fardan fardan laha tawajjuhun ila alxaqi خاص بها لا يشاركها فيه أحد وأنا يفتن تلدقنا يجيس من ده بنا ذرة بنا تب أتم بنا أج من ده بنا كيكو سوفرك أم نجبل واي بو أسفيال بوخم نمومرك موقع جابو بوكتك من جنس برام سبحانه وتعالى وربما ما خلتها ذرة أخرى ذوات في صفات في صفات ما هي فيه من التوجه ف fasatabayanuha fi umurin uxra fasatabayanuha fi umurin uxra mu ne léegi-léegi nag mu méngoog moom beneen dara waaye nag dafay jëm ci wàllu benn ci melo yi ci jubluwaay bi nga xam ne jublu na ko téyeb yàlla waaye nag du ci lépp la ñuy ànd dina am ci yenn yoo xam ne mu ñoo ànd kon nag faxkum hadal qanun na attee ji la وسر به في جميع أجزاء الوجود غدوها كتم بولم قاجم بنديسي من الملك محمد عسل والآدم ولا دوم آدم وغيره ولا جنن بنت فلو دوم آدم واعرف نهي كيفية التوجه للوجود أنا ينهي خم نه موي أنا مبجبلو ينهي خم نه سن برب سبحانه وتعالى بنديس بي بنديس بي الله بي منكو يجبلو إلى حضرة الحق كتير يالله fa ida arafta hada boo xamee lii nag wa mayyastahu ta nga xàmmee ko xaqa tamyiid xaqa tamyiidihi aw wa mayyadathu mu ràññee ko xaqa tamyiid yi dëgg dëgg ràññee ittasaa laka maydaanun azim maanaam dina la ubbil e, maydaan maanaam e, bayaal wu yaatu woo xam ne min al maarifati billah diñ ci mën a xamee yàlla wattisaai tajalliyaatihi ak yaatuwaayu te julliyaatu yàlla yi ci alwujudi ci nekkteef yi bila xaddin ci lu amul limite wala xasrin ci luñ dul tënk illa annahu taxtalifu sharia walxaqiqa fi hada almaydan lu duut ni rek maydaan boobu terrain boobu domaine boobu sharia ak xaqiqa dañ ci jaxasoo mu ne nag pour tëj wax jooju mu ne wal qawlul fasl fiiha wax gi nga xam ne moo gën a leer ci lii mooy annahu subhanahu wa taala ne borom bi subhanahu wa taala huwa al muharriku li jamil wujud mooy ki nga xam ne mooy alimenté mbooleem nekk te wal qaaimu alayhim fi kulli amrin mooy taxaw ci moo leen di taxawee ci bépp mbir wal muqimu lahum fi kulli xaraka moo leen di taxawal ci bépp yëngu-yëngu bi ñuy yëngu wa sukuun ak bépp dal laa yamlikuuna min dunihi shay'a wole manam bindeef bi bu dul yàlla munul dara motax mu indi aaya maa yamlikuuna min qitmir doomu aadama bi amut sax capacité yi créer wala attan lu tollok qitmir ولا حركة لهم ولا حكم ولا تقديم ولا تأخير بل هم في قبضته سبحانه وتعالى وتحت حكم مشيئته يصرفهم كيف يشاء ويقلبهم كيف يريد فيما يشاء من خير وشر ونفع أو ضر أو طاعة أو معصية أو إقبال أو إدبار من جاهم بأمر بن ينجب ميدف في شعبرهم ولا بن أتى ولا لمي جيتل ولا لمي مجي ولا لمي نجب ولا بوك آه، لمي دف لدول لب نجنك fay taala maanaam ci maîtrise borom bi subhanahu wa taala ak ci suufu kilifteefu sooba rek borom bi subhanahu wa taala moom yàlla mooy soppandiku ci mbindeefa bi num ko soobee mooy wëlbati mbiru mbindeefa bi num ko soobee moo xam muy lu baax wala lu bon wala jëriñ wala lor wala topp wala moy yàlla wala dëgmal yàlla wala dëdd yàlla summa innahu min waraai haadihi alxaqiqa ginnaaw nag moom subhanahu wa taala ci ginnaaw xaqiqa boobu تجلى سبحانه وتعالى سنبرم سبحانه وتعالى رفاي سين فجعل تلك الحكمة والشريعة منوطة بالشروط مجل حكمة مغوغو الشريعة مغوغو داري كوي سنك كي أي شاق والأسباب أتي سبق والضوابط أكي بمكو واللوازم نخم نوار تيفلة والمقتضيات أتي لامبوك شريعة جب لنشتاكي لانتكاك لشيء, لشيء في تلك الحكمة عما أراد سبحانه وتعالى وكل ذلك يجري على قانون المشيئة ngir lan ngir tinki lenn rek ci yooyu la xikma ci nim ko soobee moom borom bi subhanahu wa taala te lépp lum ci mën a doon rek ñu ngi amee ci suufu ci bistéefam moom borom bi subhanahu wa taala summa rattaba fi suurati haadihi xikma ginnaaw gi nag mu noose ci melow wóowale xikma ala wujuhin ci ay anam yoo xam ala wujuhi tilka dawaabit ci anam yooyu nga xam ne dafa aju ci tënk yooyu ak ponk yooyu war rawaabit ak lënkale yooyu nga xam ne lënkale na ko boppam ak jaam yi muy axkaaman ay atte yoo xam ne ilaahiyatan ay atte ko jag boroom bi la sàmmaahaa tuddee na ko xududan frontière وعقوبات أك أي مبغل وثوابا أك يول وعقابا أك مبغل وخوفا أك رجل ورجاء أك نبت يا كاب لا خروج لأحد عن تلك الدوابت كن تنجلي في من تجنكي تنكي يسن برم تنكي والقيود تنكي نك وله الحكم والاختيار مم يعلم مم نكون على أك مويتا ميتا في كل ما فعل في صورة الحقيقة والشريعة والشريعة lépp loo xam ne mu ngi koy def ci jëmmi xaqiqatoom ak shariatoom laa yunaada kenn du ko ceeg moom wala yuqaalu lahu li ma kenn du ko wax lu tax wala li ay sey da def ngir lan wala ala maza ci kaw lan nga teg li ngay def kenn du ko wax yàlla fa laysa illa euh, maddul unuq wa taxmidul ayn yàlla bu waxee ba pare dara du des lu dul nga sëggal say loos te gëmm say bët وخضوع القلب قلب ترخلو تحت سلطان الألوهية والجلال تشوفوا كيف كيفو آه، ألوهية يالا جي أك مجايك برمبي سبحانه وتعالى وأما قوله قولهم لله سبحانه mu دال وخينا wax yi wax nañ ko borom bi subhaanahu wa taala ne ko atajalu ma fiha man yufsidu fiha ndax da ngay wàcce ci kaw suuf ku fa yàq maa taalimillahi lahum ànd ak ni yàlla xamal na leen ni inni jaailun fil ardi xalifa man yàlla maay wàcce ci kaw suuf sama wax jooju Mawlana Cheikh di ci tontu تعلم كمان أنهم ما سألوا اعتراضا لملاك يلاج من غير كونتر ولا ردا للحكم ولا اللاج من غير ديالو أتريالا لأنهم من هذا في خوف عظيم لحلول يوم رجل لا, لا يتجاثرون على مرتبة جلالته من يجاكار لك جراتة مجابي الذي أن يعترضوا عليه يدكو كونتر ويدكو ضده وإنما سألوا عن السر الموجب لخلق هذه الخليفة لندن لا يالا موي بود نيقام موارا يالا جند خليفة بي وجعله في الأرض لتخ مواتي كتك وصوف ماذا يريد به أنا لن لن نمتلو لمنبرم سبحانه وتعالى وقد رأوا ما كان عليه أهل الأرض قبله من الظلم فالجسم ñun ñi nekkoon ci kaw suuf lu jiitu yoon ci yàlla aadama liñ nekkee woon ci tooñ wa fasaad wal fasaadi ak yàq wa taski dima ak tuur deret wa taaddi baaduhum ala baad ñenn ñi di jalgati ci kaw ñu ci def wa raaw dalika fi kulli man sakana al ard ñu gis loolu ci képp ku dëkk ci kaw suuf mundu xuliqat bañ leen a bindee ilaa an qaala lahum ba keroog ñu leen di wax ni inni jaalun fi l ardi xalifa man yàlla damay wàcc ci kaw suuf sama xalifa ما رأوا أمة في الأرض خرجا عن هذا الميدان مثنيو جيس بن مكان في كوسوف بجين نيكي سيتم بندري مويتون تون تور ديرت جلجت يومن نون فحكموا على الباقي بسوة ذلك نداري أتي آدم في ملو نجتنا وسألوا ماذا يريد بجعل هذه الخليفة في الأرض نلاك يالا لن لن نمشي واتي خليفة في كوسوف على ما يقع من ذريته من الظلم ca la nga xam ne mi ngi tàbbi ci njaboot ak aadama ci tooñ ak yàqte ak sos ci sofkul dima mooy tuuri deret qaala subhanahu wa taala suñ boroom tontu leen ma la taalamu man xam naa li ngeen xamul lam Cheikh Tijaan radiyallahu anhu ne lam yaalamu ma awdaa allahu fi aadama min asraarihi wa xazaa'ini bi li ñuy tegtale mooy xamuñu yàlla dénki aadam ci ay mbóotam ak ci magasin wu xam-xamam وما يراد به ومن ذرية أهلي لن نمتمهم آدم أسنجبوتهم من ظهور أحكام كمالاته وألويته تفين المتم بأت الله به وأنه يريد منهم عمارة الدارين آه، نكمهم يالده فبقي في دوم آدم يجن للنياري كري موي أدنا أك الآخرة بصورة العباد والنعيم في ملو بغل أك ملو خيول وما يتبع ذلك من الأحكام أكلي طب تيولو ما نعم تنبغى لبانيا تي أي أبت والله وادم أكيني طب جنبكي ميتقب بلدي والمقتضيات أكلم لامبوي ولما استفهموه بنجمينك بل أبت وهم يعلمون ما في اللوح المحفوظ فنهم قمنا لنا في اللوح المحفوظ ومطلعون على المغيبات فنهم جسنا أي غيبيات fal jawaab tontu bi mooy innahum maa amilu maa kaana fi aadama wa zuriyata wala salaamu aley ñoom maa alimu maa amilu jëfewuñu woon maa kaana la nekkoon ci aadama ci yonte yàlla aadama zuriyati ak njabootam wala salaamu aley te gisuñ ko gisuñu li yàlla doon li yàlla di xaaree aadam ak njabootam ci kaw suuf moo tax yàlla ne inni alamu ma la taalamun man xam naa lu ngeen xamul فإنهم وإن علم علموا ما في اللوح يوم دونت كسقم نجي في لوح المحفوظ فما أطلعهم على جميع غيوبه إلا ونلا غيبيات يب إنه لا يحيط به بعلمه غيره ده يالا قام قام بكين دو كل المم يالا سبحانه وتعالى وسئل سيدنا رضي الله عنه عن بعض حروف من القرآن قال فيها علماء المعقول إنها زائدة وبعضها مستعارة لحروف غيرها هروبا مما يعطيه ظاهر اللفظ من العلة والزائد في اللغة هو الذي لا معنى له وحاشا أن يوجد في القرآن حرف لا معنى له أه، مولانا الشيخ رضي الله عنه بن ko yenn ci xaraf yi nga xam ne boroom xam-xam yi nga xam ne dañuy demee seen xel rek wax na ni ay xaraf la yuñ yokku wala ay xaraf yuñ àbb ñoom nag li tax ñu def ko dañuy daw ci firi aaya bi maanaam aaya bi lamuy joxe ci zaahirul lafzi فعلماء اللغة بني وخي حرف بني يكو موي حرف بو خامن أمود معنى تي وحدي الحرف زايد أمود معنى تي وحدي تجم من تي الله موي دوغل تي القرآن لو خامن أمود معنى نيلات مولانا الشيخ رضي الله عنه مولير اللول وكنا تي آية يوي موي فبما رحمة من الله لنت لهم لولو بين لك bokk na ci laam di nekk ci wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni laamul na ci laam di nekk li yakuna lahum aduwan wa hazana bokk na ci laam yi nekk yi tamit li taa bi idnillah ak alif ak waaw ak yaa ci yeneen mawaadi كم نكو علماء الرسمي دوحي مولانا الشيخ رضي الله عنه دتون تشهد على الحرازين فأجابه رضي الله عنه بقوله مولانا الشيخ رضي الله عنه دتون تشي وخمجي لن لتون تو دفني تعلم كملني أن العلة المستحيلة في حق الله علة جنيا كم ندفع جوم مجي حق الله هي مهي. أن لو قدر قدرنا شيئا يعود النفع قدرنا شيئا يعود النفع منه على الله أو الضر أو الضر buñ dogaloon mbir moo xam ne dafay dellu njëriñ li day dellu yaudu nafu minhu njëriñ loolu di tàbbi ci mbir mi ah, day dellu alallahi waral yàlla awit dur wala lor gi maanaam njëriñ yàlla wala lor yàlla loolu kenn mënu والله تعالى في القرآن سبحانه وتعالى مومنك أه، تعالى كان عن هذا كل علوا كبيرا كذب مكمنا جنبا تنك لولو فهذه العلة وول رجنك هي المستحيلة في حقه لفجم وجه حقك برمب سبحانه وتعالى wa ama alilla allati yacuudu nafcuha aw daruha cala alcibaad ama anag rajiya kabne njeriñli wala lorgi day dellu ci gambi fahadihi jaa'izatun loolu jaadula laa shay'a fiha daranetike maanaam yàlla ken munu koo jëriñ ken munu koo lor loolu ilila jooju dafa jomb ci yàlla ama anag bu fekkee ci gambi lay dellu loolu dina jaadu لأن حكمة الله التي هي شرائع أنبيائه أظهر فيها سبحانه وتعالى الارتباط بين الأشياء من النسب والإضافات كالسبب بمسببه والعلة بمعلولها من لخ حكمة الله منام كرن كيف يلا يقم موم لدخن كي شريعة يونان تاني سينا موم سبحانه وتعالى lënkaloo bi nga xam ne mbir yi dañ lënkaloo ci wàllub askan ak wàllub jokkoo comme sabab bu ak li koy sabab wala illa ju ne ràgg ak li ko ràggal lu mel ni rek wa man yuti laaha wa rasulahu yudxilhu jannatin tajri min tahtiha al anhar kon sababab dugg àjjana mooy topp yàlla ak topp yonontaam سبب دغ السفر نك موي كون الا دغ سفر موي ومن يعص الله ورسوله كما يلا اجنتام ويتعدى حدوده من الجلجت ابشارتام يدخل هنا نكدو سفر الى غير ذلك من الايات اجنن جملني في اياتي والاخبار اخبار مما هو كثير في مثل هذا آه، في لنخمنا رتنا في لبري في أنا بمني وكتوقف المشروط على الشرط اكي سامي تخوا ييغا مشروط مانام لي شرطال تي موم دا سي اجي فاذا فهمت هذا المعنى من بود معنى دي في الايات المذكوره في ايين تدلل وجواب الحكم على العباد أتنت كنت أتدي الذي أتتك جاني بما حكم الله به عليهم سلم أتتينهم bi qawlihi ci waxam ji li yacbuduni ngir ñu jaaw ma ay wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li naxkuma alayhim bil ibada kon laam googu xukmu lay firi binduma nit ak jaam nit ak jinne lu duut ma atte ci ñoom ñu jaamu ma kon fa man lam yacbudu nii minhum aqibatuhu bi adabi képp ku ma ci jaamuwut mujjëm mooy sama mbugal وكذلك ليطاع أي وما أرسلنا من رسول إلا لنحكم بطاعة الخلق له يعني ونتني ينت لدود من أت في طب تجناه فمن لم يطعه فأصنع به ما فأصنع به ما أرد فأصنع به ma aradtu min alikabi wa anwai lhalak képp ku toppul yonanti dina naa jëflanteg moom lu ma soob ci wàllu mbubel ak wàllu halka alak haada mu ne lii huwa almuraadu min alayat mooy liñ namm ci ayat yi wa innama altabasa manaha an amman sarafaha mu ne maanaa ji nag dina lënt ci ñi nga xam ne dañ koy jéema soppandi an zahiriha ci zahiru laaya gi maanaam لآدمي وحده لعدم التفريق بين الصفتين إنك جنك من التقل ياري نروي موي صفة الحكم الصفة المسيئة نرو أتب الله أج نرو شوبر برمبي سبحانه وتعالى موم مولانا الشيخ رضي الله عنه وعدم الفرق بين العلة التي تجوز أجنك من التقل في علة جنكم بنا والتي لا تجوز أجنك من جاروت فمن عرف الفرق بينهما بال عنه الإشكال في ارتباط الأحكام الشرعية بعضها ببعض كبك وخمنا قمنا تبقى الذي دخل بجن تنيار علا يوهم وي علا جيجادو أك علا جيجادو وطمانام علا جيجادو وطموي جيجم تيوالو يالا جيجادو موي جيجم تيوالو بندس بي كبك أم تبقى لغو برد من يو إشكال لنت لنت بي nga xam ne zaala anhu l iskaal lënt lënt bi day dañ ci moom irtibaatul ahkaam ci lënkaloo yi nga xam ne na ko lënkaloo ak attey sharia yi baaduha bi baad maanaam lënkaloo gi attey sharia yi lënkalante ci seen biir كما قدمنا كم ننكو جيتلي فعلى المؤمن أن ينظر بعين قلبه إلى, إلى أن الأشياء بالنسبة لمشيئة الله عارية عن العلل موضع جلد way gëm bi dafa war a xoolee ci bëtu xolam ne bu ajoo ci coobareeb yàlla dafay rafle eh, ak rag yi du am illa du am sart du am idaafa du am aska liñ koy askane du am sabab wa innama xukmu xakama allahu fi azalihi bi maxtaarahu waaye yàllaay atte ci azaliyatoom gi lim tànn eh, lim tànn ci loolu موتخ يا بو أتي في أذل على هذا سعيدا في نسكي نديته بفاورك سو أتي نسكي ديته بفاورك سو أتي نسكي غنيا في عمل له بفاور كي فقير له من غير علة سلو امدنا إلا بين سبب ولا غرب ولا جار جار قلنك وينظر بعين قلبه لما أظهر الله في حكمته من الارتفاع بين الأمور lim mu war a def mooy na xool ci bëtu xolam ci li yàlla di feeñalee ci ay xikmatoom ci minal irtibat ci lënkaloo gi lënkaloo baynal umuur ci mbir yi kon bu boobaa nag wa yaraaka zaahiri day gis ci lu feeñ ni annahu ida faala kada min al xayri moom su defee dara ci ab yiw ataahu llahu kada yàlla jox ko nangam kooku ci xukmullah la bokkut ak masiat masiatullah ndax masiatullah lu yàlla noppi la ba pare defut ko ngir benn sabab waaye xikma bi moom sabab moo koy joxe su ma defee lu baax am nangam ci yool di max bil fadli ci a ak yàlla wa ida faala kada su defee nangam min asharri ci safaan aaqibatuhu bi maxdil adli mu jëm aaqabahu eh, yàlla dina ko mbugalee bi maxdil adli ci ak mandoom لأنه له الحكم لا الله يالله نيال نكو أفقاتي والاختيار أفتان إن شاء فعل بكون يحيى مبغلكو وإن شاء ترك بكون يحيى مبايكو في مملكته في مملكة لا يسأل عما يفعل مم يالله كندو كل الله يجب تحن يدف ثم قال الشيخ رضي الله عنه من ينج ناوزي مولانا الشيخ رضي الله عنه وحنني وحروف القرآن ليس فيها زائدة حرف القرآن أمد حرف زائد ما نم حرف بنيوك ولكن إذا كان المعنى يؤدي بحرف واحد فسكي معنى جنده جردا حرف وركبه في بعض المواضع معه نداد كوي كومبوزيشن بربي مؤنك حرف بوه معه غيره حرف بوه أنك ينين ودود موم لذلك المعنى بعينه ينجر معنى بوه تبقم فيكون الحرفان معا لذلك ناري حرف يويدني أن لندو لول موتا لذلك دنيا أن نهل لذلك المعنى بوغل معنى وليس الأخير منهما زائدا دوت حرف بمجب نيوم لن يقل بل الأول والثاني لذلك المعنى حرف بمجب يب لن كيدلو معنى دي خمنا المصدر بهما مولن فيني ولهذا لذلك قال صاحب الإبريز من اللول موتخبرا إبريز وحنيه santeeti jële ci sëriñam radiallahu anhu ne ida zida xarfun fi kalimatin buñ yokkee benn xarfu ci benn baat walam yazid fiiha min mawaadiin aaxar te yokkuñ ko ci ci beneen bërëb maanaam dañ ko yokku ci bërëb bi beneen bërëb yokkuñ ko ci fal kalima wal kalimatu hiya bi ayniha fi lmawdiin te baat boobu ci boppam moo nekk ci ñaari bërëb ya أو المواضع والتي ضرب لفظا يعني في آه، لفظ معنى بعد ومعنى في معنى كالألف والواو والياء كم ألف أقوى أجياء الزائدات من يعني دولة في بعض الكلمات ين كلمة فالموضع الذي زيدت فيه بربنا بنا قمنا دنكو فا يوكي دنكو يوكي لسر آخر جربين بوت وهم لم يكن في التي لم تزده فيه نكتي baab bi nga xam ne yokkuñ ci xarax boobu xasaba qala radiallahu anhu mu ne noonu la ko moom chat jean radiallahu anhu waxee intaha jeex na min imlaihi ca lam fite woon ala muhibina suñu soppee fillahi allah sayidi mohammad ibni misri xafisahu llahu bimannihi amin kon mbokk yi loolu mooy doon suñu darsu tey